lii muy seen émission bi di salon d'honneur ñi koy amal depuis ba weeru sell bi daal di ñëwee ba léegi ngeen gis ni bis bu ne ak invité bu ñu fiy dalal bis bu nekk ak kilifa boo xamante ne moom mooy toog ci chaise bi tey nag ñu am honneur bu baax a baax waaye tamit mbégte daal di accueillir ki nga xam ne mooy suñu ministre des sports <coughs> ci kanam lay doon ñu sekk ak moom waxtaan waaye balaa boobu damay gestu daal di nuyu kii di Mamadou Biteye Mamadou Biteye nuyu naa la maa ngi lay fay Khady Sylla di la ziar di la tatagal di nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne bés bi yàlla sàkk dañuy bàyyi seen lépp nag fas yéene jàkkaarloo ak ñun ci seen émission salon d'honneur ni nga ko waxee noonu rek lay amee bés bi yàlla sàkk dinañ leen fi tegal kilifa goo xam ne wax dëgg yàlla dinañ mën a waxtaan ak moom loo xam ne day jëriñ réew mi ndax dama leen ko wax ne leen réew mi ñoo ko bokk lépp lu fi mënta am rek nañ koy péncoo waaye buñ ko paccoo loolee nag moom mooy tànku groupe Walfadjri ngir ñuy waxtaane lu mën a jëriñ réew mi kon nag wax nga ko sànq ki ñu dalal di kilifa gu mag nekk ki nga xam ne ab jëriñ la ministre nekk koo xam ne itam mi ngi bay waaram ci weti président de la république kooku moom mooy mataar Ba nekk doomu Saalum noonu laa koy tuddee maa ngi moom <laughs> yaakaar naa bu ñu nee ngàcce pucca maa ngi moom ñooy gàddu suñuy bagage aw yoon wi wuti Saalum donc itam mbégte la tey ma dalal koo xam ne ab Saalum Saalum la ni man ñu jàkkaarloo fa yéene nag seq li nga xam ne moom moo di waxtaan wi waaye laataa ñu koy nuyu dama lay laaj tey sommaire bi naka la fas yéene tëddee. waaw ministre des sports moom xam nga ni bu ñu invité fii xam nga ne tey moom euh, mbirum sport dina fi am pàcc bu am solo waaye tamit du ci yem ndax dinañu waxtaanee li nga xam ne mooy actualité dinañu waxtaane ci budget bi nga xam ne budget des sports ministère des sports nga xam ne bari na ay coow bari na aussi li nga xam ne mooy ay renouement ci infrastructure sportive yi mbirum làmb ak euh, football renouvellement des instances de la fédération sénégalaise de football wax tamit ci euh, équipe nationale notamment kaw suñu entraîneur bi de Aliou wax aussi ci football local ak jafe-jafe yu club Ligue 1 yi am wax aussi ci actualité waaye politique notamment bul fàtte ni moom it mooy meeru Fatick. waaw. donc nañu wax ci gestion am nu mu téye li nga xamante ne municipalité Fatick wax ak moom aussi ci lépp loo xam ne mooy report élection locale yi troisième mandat. lépp yu ciy àndu daal ak dernier événement yu fi amoon. alors kon loolu ci kanam tuuti lay doon bu ñu defee rek de table présenté leen ñi nga xam ne ñoo di chroniqueurs yi waaye itam bàyyi gan gi mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo di bokk téléspectateurs yi euh, monsieur le ministre euh, Matar Ba ñi ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal ci salon d'honneur maa ngi leen di fay di am mbégte répondre ci seen invitation salon d'honneur et li may njëkkee d' abord mooy féliciter leen ci parité bi ma fekk parce que j'ai trouvé cinq hommes et cinq femmes et ça c' est extrêmement important ça reflète effectivement li réew mi di doxee góor ak jigéen ñëpp benn lañu donc euh, ñëw nag fekk fi samay xarit samay samay mbokku Sénégal te ni nga introduire rek dal na xel waxtaan la buy jëriñ askan wi parce que ce qui est visé c' est de donner les informations échanger ba sénégalais yi mun a comprendre peut-être li leen li leen réeroon tey nag dugg fii dafa am solo ci man di ñaanal borom kër gi jiitu yàlla na ko yàlla xare àjjana li tax ma koy def parce que seen mbokk yi yéen ñii da ngeen di def social ci réew mi te am na bés boo xamante ne xam naa ne bu dee une bonne action fexe ngeen ma def ko mooy gis ngeen neew si doole bu ko jàppale ngeen waxtaan ak nit ñi ñu jàppale ko loolu il faut nit ñi xam ne yemu leen ci informé mais da ngeen di jàppale ñi ko yeyoo te loolu lu am solo la ci réew yu néew doole yi réewu Afrique yi on ne peut pas ne pas jouer la carte de la solidarité donc maa ngi mais nag Saloum Saloum moom bu ñu àndee Fatick lay yem bàyyi la nga dem nga <laughs> dem Saloum mais foofu laa la gajee parce que parce que parce que boo wàccee Fatick ma dem Kaolack <laughs> ah xam nga ne yànj na <laughs> waaw waaw yéen a yéen a ñu doon lengee bu njëkk mais ah, léegi on a pris notre autonomie nekkatul région Sine Saloum Fatick donc damay topp rek yoonu maire bi comme maire bi moom département Fatick la dëkk. ma bàyyi rek eh, topp ko bàyyi la nga dem boori boori Saloum. <laughs> boori Saloum seen totem bi nu mu tudd. <laughs> ministre. Hmm, kon baax na <laughs> alors merci beaucoup bi nga toogee sànq di xool ba gis eh, ay artistes di interpréter le président de la république lan la la def. mais li ma def mooy mbégte. parce que réew euh, sketch yi day démonter. ñu jàpp ne ci dictature lañu ne. Hmm. defe naa ne am na réew yoo xamante ne ñëpp fal dinañu fooye ku nekk ba muy des njiiti réew. Hmm. te ñoom gis nga leen bi ñu dogee ngeros nañu fi wax nañ fi ay mbir <laughs> eh, waxtaan nañoo ak sénégalais yi eh, lii mooy lii lal réew mi. Hmm. réew mi war nañu mën a daje ak lépp mën nañu waxtaane lépp mais li ko war a lal mooy teraanga. <laughs> ni ñuy demalante di dugal dëgg lan tooñante et puis moo tax eh, même ci mbir yi. joola ak séeréer ak mhm. tukkuleer ak séeréer mhm. eh, tooñante bi ci ne mhm. li ko lal mooy gën a dëgëral diggante yi eh, ça c'est c'est une belle initiative defe naa ne mënta naqari kenn dafa war a neex nit ñi parce que ça fait ça fait rire mais day wane ni nit ñi nit lañu ku ci nekk ci station bi nga nekk mais du tere nit ñi sakk teranga cap frais. donc merci beaucoup yéen ñu xit Cuqu euh, ak kii di Mama ci li nga xam ne moom ngeen ñu jox waxtu wu ne alors du def nag euh, Khady lu dul euh, présenté nag ñi nga xam ne ñoo di sama naataaw nga xam ne saa ma leen gisee damay mel ni ku doppewu aw Diop Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. nuyu naa la Mouhamadou bi tey nuyu Khady ci laa tatagal suñu gan bi nuyu Tidiane Gomis mon frère te ñu dëkk ci xuloo maa moom maa ngi lay jaar waaw man maa ngi lay fay di kontaan rek eh, ci eh, invité bi ñu am dégg nga mu nekk eh, loo xam ne vraiment comme ni ko gars yi di waxee rek dafa yaatu wane na ko tey ji yaatoom bi kon nag di nuyu suñu téléspectateurs yi ñu seetaan di naan daal lépp luñ fi wax daal pour defar la rek. Mm-hmm. muy noonu. jërëjëf Moustapha Diop. bi tey maa ngi lay fay bu baax di nuyu le ministre Matar Ba ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci waxtu wile ci biir réew mi ak ci bitim réew. Ah, merci beaucoup Aïcha Diakhaté maa ngi lay ziar. Mouhamadou Biteye maa ngi lay fay c' est toujours un plaisir di jàkkaarloog yow si euh, plateau salon d'honneur di nuyu également Khady Sylla euh, ñi ma bokkal plateau bi yëpp mais di beral nuyoo sunu invité euh, monsieur le ministre Matar Ba di profiter si salon d'honneur di la wax merci ndaxte neen na nit ki bu defee lu baax également da koy fàtte mais il faudrait que ñu da koy rappeler. pour la première fois ma gis monsieur le ministre fekk ay journalistes taxaw di xaar seen auto de service pour ñu ñëw mu fa taxaw gaare ne ñëw leen ma yóbbaale leen moom mi moo ko def xam naa ne fàtte na ko mais geste bu mu def la boo xam ne neexoon na ma man ak sama trois consoeurs naaj bu tàng ci buntu APS mu déposé te ku ci nekk ci organe de presse bi nga nekk wute na loolu lu rëy la te dama doon profiter ci occasion pour jàkkaarloo pour wax ko ko vraiment nekk xam ne nii sama m'a touché vraiment venant d'un ministre quand même te kii dawal boppam en plus en plus <laughs> merci beaucoup loolu la mag ñi di wax ne gone boo koy lebal lebal ko lu baax ndax du ko ah, fàtte bay laa yow mi di ni moom fàtte woon na ko mais yow yaa ngi ku baax nga parce que itam mënoon nga ko bañ a souligner loolu itam lu rafet la dañ koy féliciter rek yoon woow mu topp ko ay <laughs> ca ma ñëw ci Ramtoulaye saar Sarène bi maa ngi lay maa lay ziar maa ngi lay delloo ziar Mouhamadou Biteye ziar Khady Sylla mi nga toogal ak monsieur le ministre également euh, un plaisir toujours de le recevoir ci plateau Walf TV ziar également téléspectateurs yi nga xamante ñoom la ñu fas yéene àndal ci émission bi. merci beaucoup mon frère Issa maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar bu baax Mouhamadou Biteye di nuyu Khady Sylla di nuyu monsieur le ministre des sports Matar Ba euh, di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi yëpp. merci beaucoup kon nag mbokk téléspectateurs yi mat na sëkk du ñu def lu dul soobu ci waxtaan wi xadisi la kan ngay jox kàddu gi mu tàmbali waxtaan bi